بدأت بإذن الله سلتي والجلال مام لما مولاي مام لما مولاي أصلي على المقبوط بذي المجد والأولى بدأت بإذن الله سلتي والجلال مام لما مولاي مام وصل يا للمغبوط بذي المجد والغلا سناء جميلة لنبي إمامنا مام لما مولاي وأن إمام لاي ذي الفضل والعلا سلوا يا عباد الله عليه sa limaam maam limaamu laay wal Mustafa xayrul baraaya mukammala sanaawun jamila limati nabi imaamina maam limaamu laay وانا امام لاي ذي الفضل والعلا صلوا يا عباد الله عليه السلام الامام لاي والمصطفى خير البرايا مكملا وفخر لله fadlan wa bil ulaa maam li maamu laay siraajan naaralil xujoodi zawi dalaa bay laay mooy xamarul idaaya wali naayatu rabbana maam li maamu laay والشمس بدين الله مصباح من جلا والسبق بدا من جلدي سيد الورى مام لمام مولاي ولا شمس لا خمر ولا نجم لا بيلاي ولولاك لا خلقا في ملكي إلا إنام مام لما مولاي جرى خطره في الكائنات المؤملة بايلاي موي إمام الأنبياء سفينة نجاة مام لما مولاي مام لما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

la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la la la la la ilaa laa ilaa ilaa laa laay seydina rasulu laay laa ilaa ilaa laay maam laa ilaa ilaa laa ilaa ilaa laa laay seydina rasulu laay laa ilaa ilaa laay Seydina Rasulullah la ilaha illallah Seydina Rasulullah la ilaha illallah laay nabi laay nga bàyyi laay yàllaa la yónni laay ngay woote diine laay laay laa laay bilaay nga bàyyi laay yàllaa la yónni laay ngay woote diine laay laay laa laa

lay jol maa ngay waare waar leen ca penku lay waar leen ca saw baar lay lay lay lay jol maa ngay waare waar leen ca penku bay lay waar leen ca saw baar lay lay lay lay jol maa ngay waare waar leen ca penku lay waar leen ca saw baar lay lay lay lay jol maa amul maas row laa yonen la yaakaar yaa nga sow baal laay laay laa laa amul maas laay amul maas row laay yonen laay yaakaar yaa nga sow baax laay laay laay laay amul maas row laay yonen laay yaakaar yaa nga sow baax laay laay laay laay alasa ne ceene kin woolu na kunu laay jaara ma baay laay laay laay laay laay alasa na ceene kinu wóolu na xunu lay jaaraama bay lay lay lay lay lay te wóolu laay yaakaar te doyloo laay laay laay laay yi bay laay nanu gëm te wóolu yaakaar te doyloo laay laay laay laay nun ga yi bay laay nanu gëm te wóolu laay yaakaar te doyloo laay laay laay laay lay lay lay lay Muhammadu Rasulullah lay lay lay lay Muhammadu Rasulullah lay lay lay lay Muhammadu Rasulullah lay lay lay لا إله إلا الله لاي محمد رسول الله لا إله إلا الله مم لباس لا رسول الله لا إله إلا الله مم لباس لا رسول الله لا إله إلا الله libaas lay rasuulu laay laay laay mam libaas lay rasuulu laay laay laay lay sangub jamaana roowu laay laay laay lay sangub jamaana جمان رو لا لا لا لا لا لاي زنگوب جمان رو لا لا لا لا لا لاي رمغ سيدنا منجور لا لا لا لا yaram nga Seydina ma njoon lay lay lay lay yaram nga Seydina ma njoon lay lay lay yaram nga Babakar Sadiq lay lay lay yaay yaram nga Babacar Sadiq laay laay ilaalaay laay yaram nga Babacar Sadiq laay laay ilaalaay laay ñu gëm te wóolu tey saxoo laay laay ilaalaay gëm te wóolu tey saxoo laay laay laa laa laay laay laa laa laay laay laa laay laa laa lay lay la la ila la lay lay la la lay lay la la ila la lay lay la la lay lay la la ila la lay lay la lay la la lay lay la la lay lay la lay la la lay lay la la lay lay la lay la la lay lay la la lay lay la lay la la lay lay la la lay lay la lay la la lay lay la la lay lay la lay la la lay lay la la lay lay la lay la la la ilaha illa la ilaha la ilaha illa la ilaha illa la ilaha la ilaha illa la ilaha la ilaha la ilaha illa la ilaha la ilaha illa la ilaha la ilaha illa la ilaha la ilaha illa la ilaha la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la ilaha la la ilaha illa la ilaha la la ilaha illa la ilaha la la ilaha illa la ilaha la ilaha illa la ilaha rabbi yaay jalil ilaala rabbi yaay jalil ilaala rabbi yaay jalil ilaala rabbi yaay jalil ilaala أنت ربنا إله لا إله إلا الله أنت ربنا إله لا لا إله إلا الله أنت ربنا إله لا لا إله إلا الله أنت ربنا إله لا لا إله إلا الله أنت ربنا إله لا لا إله إلا الله أنت ربنا إله لا لا إله إلا الله أنت ربنا إله لا لا إله يا أبي بلا إلا لا يا رسول الله يا أبي بلا إلا لا يا رسول الله يا أبي بلا إلا لا يا رسول الله يا أبي بلا إلا لا يا رسول الله يا أبي بلا إلا لا يا رسول يا رسول الله يا حبيب لا إله يا رسول الله يا حبيب لا إله يا رسول الله يا حبيب لا إله يا رسول الله يا حبيب لا إله سيدنا الإمام لا يا رسول الله إله سيدنا الإمام لا يا رسول imaamu laay yaay rasuulu laay ilaalaw Seydina Limaamu Laay yaay rasuulu laay ilaalaw Laay yaay Rasuulu laay ilaala Seydina la roowa laay baax ilaala سيدنا عيسى روح العيون هلالا سيدنا عيسى روح العيون هلالا سيدنا عيسى روح العيون هلالا سيدنا عيسى روح العيون هلالا سيدنا عيسى روح العيون هلالا Omar maam ma joona baax ilaala ak Seydina Omar maam ma joona baax ilaala ak Seydina Omar maam ma joona baax ilaala Seydina Omar maam ma joona baax ilaala Mama Njoona ba ilaa la ilaa la la ilaa kullu shay'in wa nini la la baake la ilaa la la la ilaa hotela kullu shay'in wa nini la la baake mam la ilaa la la la ilaa kullu shay'in wa nini la la baake rawatina mam laay laay laalaw laay laay kullu shay'in faanihi laalaw baaxe mam bay laay woote naa mam laay laay laalaay laay kullu shay'in faanihi laalaw baaxe bay laay woote naa mam laay laay la laay laay lu sey la ni la laaw baaxee Sëriñ Faal ni la laaw baaxee am bay laay woote naan Sëriñ Faal ni la laaw baaxee mam laay laay la laay laay lu Sëriñ Faal ni la laaw baaxee waaw Abdoulaye baay na bee Aminata yaay yónneen sallallahu taala Abdoulaye bay na bee Aminata yaay yónneen sallallahu taala Abdoulaye bay na bee Aminata bay na bee Aminata yaay yónneen sallallahu taala mam laa ilaaha illallah alasan maam Kumba Ndoye yaay yónneen sallallahu kuma doye yaay yonent sallallahu taala mam laay laay la la la saan baay ngiin kuma doye yaay yonent sallallahu taala mam laay laay la la la saan baay ngiin kuma doye aminata yaa yonen sallallahu taala aminata yaa yonen sallallahu taala aminata yaa yonen sallallahu taala aminata yaa yonen sallallahu taala aminata yaa yonen sallallahu taala aminata yaa yonen sallallahu taala taala kumbondo yaa yonen sallallahu taala kumbondo ndoye yaa yónneen sallallahu taala kumba ndoye yaa yónneen sallallahu taala kumba ndoye yaa yónneen sallallahu taala kumba ndoye yaa yónneen sallallahu safirullah la ilaha safirullah la ilaha safiru la ilala safiru la la ilala safiru la ilala safiru la la ilala safiru la ilala safiru la la ilala safiru la ilala safiru la la ilala safiru la ilala laa safiiru laa laay la safiiru laay la laa safiiru laa laay la safiiru laay la laa yéen bàyyi laa ya baax la la safirula yéen tuub leen bàyyi ya baax illa la safirula tuub leen bàyyi laa tuub leen bàyyi ya baax illa la safirula tuub leen bàyyi ya baax

bayla ya baab ila la safirula yéen tuub leen bayla ya baab ila la safirula tuub leen bayla ya baab ila la safirula yéen tuub leen bayla ya baab ila la safirula tuub leen bayla ya baab ila la yaakaar arjo sa paa njin la nu woolo arjo sa paa bay lay la nu yaakaar arjo sa paa njin la nu woolo lay arjo sa paa bay lay la nu yaakaar arjo sa paa njin la nu woolo lay arjo sa paa bay lay la nu yaakaar arjo sa paa njin la nu woolo lay arjo sa paa bay lay la nu yaakaar arjo sa paa njin la nu woolo lay arjo sa paa bay lay la nu yaakaar laay arjo sapa baay laay lanu yaakaar arjo sapa njin lanu woola laay arjo sapa baay laay wallaay arjo sa paa baay laay la nu yaakaar arjo sa paa njiin la nu woolo laay arjo sa paa baay laay la nu yaakaar arjo baay laay la nu woolo maam lay lay la la baay sunu yoon lay lay la la njiin la laay laay sunu yónnee laay laay la laay maam laay laay la laa baay laay sunu yónneen laay jin la nu maam lay lay la la bay لا خير خلق لا إله إلا لا إله إلا لا خير خلق لا إله إلا لا الخلق لا إلا نقولوا لا إله إلا الله يا رسول لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رسول لا رسول لا دولو لا إله إلا الله يا رسول الله يا رسول الله لا إله إلا الله maam li maamu yow la nu wóoloo laay laay oh, la la maam li maamu yow la nu wóoloo laay laay la la la ilaha illallah روى لا يزال ولا لا اله الا الله Seydina ma jolloon wóoloo la ilaha illallah Seydina ma jolloon wóoloo la ilaha illallah Babacar Sadiq la nu wóoloo la ilaha illallah Babacar Sadiq la nu wóoloo la ilaha ah, illallah te diir la nu wóoloo laay laay la la mam li maamu laay ba mu wootee leer gi yàgg na ngeen di bañ ba xar nu ba jeex na laay laay la la léegi yàgg na ngeen di bañ ba xarnu ba jeex na laay laay laay ba mu wootee léegi yàgg na lool ngeen di bañ ba xarnu ba jeex na laay laay maam li maamu laay ba mu wootee léegi yàgg na ngeen di bañ ba xarnu ba jeex na laay laay ba mu wootee léegi yàgg na lool ngeen di bañ ba xarnu ba jeex na limaamu laay ba mu wooteeg leer gi yàgganal ngeen di bañ ba xar nu ba jeex na laay laay la laay limaamu laay ba mu wooteeg leer gi yàgganal ngeen di bañ ba xar nu ba jeex na laay laay la laay roowalaay isaa la nu tàmpeel ca Makka ak Midi moo ju léegi maa di yu saw ba laay laay la laay moo julee si maa di yu sow baa laay laay laay roowalaay isaa la nu tampeel ca Makka ak Midin moo julee si maa di yu sow baa laay laay laay Moo julee si Maadiyu Sawba campeel ca Makka moo ju léegi maa di saw ba laa ilaaha illallaah walaa isa la nu campeel ca Makka moo ju léegi maa di saw ba laa ilaaha illallaah bay laa yaay bi yaay ramu jaam ñe yaay ramu jaam ñe laay laay bay laay yaay yonen bi yaay ramu jaam ñe laay laay yaay yonen bi yaay ramu jaam ñe laay laay julli too jaamu leen ñu naan ca tuube laay laay laay jaamu leen ñu naan ca tuube laay laay julli too jaamu leen ñu naan ca tuube laay laay laay julli too jaamu leen ñu naan ca tuube lay julli too jaamu leen ñu naani ca tuube laa ilaaha illallaah amiin yal na buur saxal nu ci diine laa ilaaha illallaah nooreyni yaa baax wa seynu laay sama ma gën doon nu ngay ngënee sabaaya ni woon wa uxraa nooray ni baax wa zeynulaay sama gën donnu ngay ngeneen sabaaya ni دنيا وأخرى ilaay danga baax te yaa tuteen bu tey bu neex moom may nu rool mariyaak yaa gi lay xëccoo bàyyi wa seynu ngir xeer ci yaaw doomi roowalaay jugeel ma Sénégal jàllal ma rool nga dem France jaar États-Unis Italia saa ba yaa bay wo seynu yow am nga ndam doomi ci réew mi taxul ñu fàtte diine bay laay resoolu laay laay ñëw na yee xulóob yi taar ñoo te tax bu may seet yow yaay docteur de la jeunesse ndax defar nga noo womat nga noo sanga jubal nga noo yaa dëggal sa waxi maam am dali rabbana cay dogal ba jiitu na amum mboolem mi ndeef fi lu hujoodi rabbana yàlla yaa di buur am dali rabbana cey dagal ba jiitu naa amum mboolem mbindeef fi lu joodi rabbana laa ilaaha illallaah nangul du may sëriñ ay nga neel jaay yàlla yaa di buur allahu rabbuna laa ilaaha illallaah yàlla jullil ci maam li ba sunu yoneen xabibuna ya la la nangul nu may sëriñ ay ngane jaay yàlla yaa di buur xandal li rabbana cey dogal ba jiituna amum mboolem mindeef fi lu xujoo di rabbana alaaw yaa aziz yaa karimu yaa la la la nangul nu may sëriñ ay ngane jaay bay wa jayidulaa yaatu kër gu ku ko def kër mujj yi la way nan muñ ca wax lu baax ku ci dee taab bi aljana laa ilaaha illallaah nangul nu may sëriñ ay ndameel ca bay wa jayit laay dama gëlëm di way bu ma jumee na ngeen ma baal ma jaal sa tubi yonen sëriñ fo doomi roow naa bay woon say noo baara mu nga biir jàmmalaay bay woon say idulaay fajar ga bay demee bisu àllarba lay dëppool di benn fan juillet dogalub yàlla wàcca na bay woon say noo baara mu nga biir jàmmalaay bay woon say idulaay ñu waat ba jóg di dem ñëpp a yooxu maase naan bàyyi sëriif du génn wi sunu bis booba yeeme naa bay wa sey no baa ma nga bay wa tey du laay ñu jaare pot ba dem xel yeex dem ca maam libaas ñu naa lu neexul na bay wa sey nu jiitu naa ya karim bay wa sey na baax nanu may jàmmalaay yàlla yaa di buur rangoon sotil walal doon géej yeeg dañeelu la bilaay jar na jooy borom nga neel la yeeme na sey na baax ma nga biir jàmmalaay bay wa sey du laay bilaay jar na borom nga la yéeme naa yaa karimu yaa seynu baab nangul ñu may sharif ay wa seynu laay bilaay jar na jooy borom nga la yéeme naa yaram baa nga ca laay jar na jooy borom nga ne la yéeme naa mooy soppe mi ndéem yi nagu wax lu laay gi laay jar na jooy borom nga ne jooy